génn Ngoundiane tey dem Dakar rek dangaa wuti bu ñu sañoon tey lépp lu ñu am Ngoundiane fii la ñuy toog di ko fi liggéey gën doxal ko mu dëkk bi waaye aussi gën a jàppale suñu parent yi muy suñu yaay yi muy suñu papa yi waaye jàppale si suñu rakk yi loolu moo ñu gën a dem Dakar ñu ñuy exploité wala ñu nekk di waa ñu ñuy jiñ ay sàcc yeneen exploitation yoo xamante ne doo ko mën sa expliqué nañ dem ci vole yu bari ndaxte boo xoolee ci xale yi jigéen ñi am na ñoo xamante ne déjà ñu ngi seen boutique di def commerce nga xam ne mun nañu par exemple bu ñu jotee financement bi euh, dem euh, voyager jënd ay marchandises ñëw di di ko jaayaat mun gis nañ ci ñoo xamante ne aussi déjà am nañu seen restaurant nga xam ne boo leen financé tey peut-être mun nañu ubbi beneen cadre boo xamante ne mooy gën rafet mooy gën a mag pour am plus de revenu am nañ si ñoo xamante ne aussi déjà ay tailleur lañ donc ñooñu aussi bu ñu leen accompagner euh, dina gën a dina gën a baax donc am na ay coiffeuse tailleur restaurant ak ñe ak ñoo xamante ne aussi ñu ngi sax ci domaine agricole. ndax majeure partie bi nga xamante ne peut-être ñoo nekk Dakar ñu ci bëri xëy na daan nañu jàng des fois situation bi moo xaw a metti ba ñu bëgg a dimbali seen parents tax ñen ñeen ñi dagg seen njàng mi mais ñi nga xamante ne ñoo nekk suñuy rakk yi tey du ñu nangu ñu dund fe loolu nga xamante phénomène boobu nga xam ne ñun ñii dund nañ ko. ndax ñun moom étant élève dañuy dem Dakar di daan suñu doolee di def yenn yenn yenn liggéey yi nga xamante ne dañuy mun a jàppale suñu bopp ngir jënd suñu funduur ak yooyu kon tey jii chance boobu nga xamante ne suñu rakk yi am nañ ko mooy ñun peut-être fi ñu toll nii tembe xam nañ enjeu yi nga xamante ne loolu la phénomène boobu am kon lu ñu mën a def rek mooy xeex ko mais encourager xale yi que ñu toog fii te jàng bañ a dem Dakar bañ a wuti. Euh, dañu gis ne ci fukki at yu ñu fi nekkoon xale su Ngoundiane maanaam ci budget bi di ko jox jigéen ñi groupement de femmes yi am na njeexital waaye des na ba léegi parce que permettre na leen ñuy leblante seen biir mais ñu gis ne mécanisme yi état du Sénégal toxal mu mel ni FONGIP mu mel ni DER mu mel ni FONSIS biñ ci taamu tey mooy FONGIP nga xam ne daf ñuy compte garantir 10 million la ñu génn ci budget commune bi waaye permettre nañu am un fonds de financement de quarante millions maanaam fukki million ñu am ci ñeent fukki millions naka la demee fukki millions yi dañuy jël jébbal ko FONGIP FONGIP mooy jël teg ci fukki millions muy ñaar fukk ñaar fukki yooyu daf koy jébbal crédit mutuel def ko fonds de garantie crédit mutuel tamit comme banque la dafay jël risque un risque de cinquante pour cent donc vingt millions boo ko joxee euh, euh, mu jël un risque de vingt millions yooyu nag dañ koy tas ci jigéen ñi. maanaam xale yu jigéen ñi xam dañu am ay projet ci wàllu euh, restauration coiffure maanaam euh, ci wàllu euh, coiffure ci wàllu commerce ci wàllu tailleur lépp loo xam ne daal jigéen ci capacité ba mu am mën na ko def ñu jàppale leen ci parce que gis nañ ne am na xam-xam bi waaye amuñu moyen bi loolu moo tax wax dëgg yàlla ñu taxaw fond di ci am mbégte lool di ci remercier conseil municipal mu ngi ñaan moo ma ci jàppale di remercier FONGIP di ñaax crédit mutuel ñu góorgóorlu waaye di féliciter les jeunes femmes moo xam seen yaay yi la te Bambika jiite leen moo xam jeune fille la te Amitine jiite la ànd ak ñoom Abiyatou ñoom Daba caw ñoom Tuuti ak ñoom Astou Diouf véritablement bu ma limee juma juma. dina wàññi exode rural bi waaye dina wàññi surtout liggéey yi nga xam ne xale yi bu ñu tukkee loolu lañ doon def parce que xale yi dañ daan tukki nekk ci mbindaanu di fóot ci mbedd mi waaye ba ñuy sax tukki bi waaye ñu def liggéey yoo xam ne. duñu ci rus ñoom duñ ci rus parce que wax dëgg yàlla damay am te gis ne kii doomu Ngoundiane la financer nañ ko ubbi na restaurant wala ubbi na atelier tailleur wala atelier coiffure wala lépp loo xam ne nit mën na ko suturu la te ñu dignitéem